xamante ne nammeeku nañ ko foofu ca Touba moom mooy les inondations mu nekk loo xamante ne ñu ngi jooy te noppeekuñu ñu gis ki nga xamante ne moom mooy Cheikh Thioro daal di yëkkati ay kaddu xam leen ni parewuñu pour euh, saafara euh, problème boobule kaddu yooyu noo ko jàngatee wala noo gisee situation bi nga xamante ne képp ku dëkk Touba mu ngi koy dund euh, laata ñoo jàll ci li gën a fës dëgg-dëgg moom mooy ne nomination yi nga xamante ne moom it jur na polimique waaw. maa ngi lay siyaar naa nag di la bëggee yow bu baax a baax. surtout yow nga nekk jigéen ju jàmbaare tom borom tiktok bi waaw gis nga de waaw yaa ma gën a xam. Ah. yow mi nga xam da ngaa bëgg Sénégal lool sax waaw. Uh-huh. léegi nag mm. euh, damay tàmbalee ci sëñ Cheikh Coro Mbacke. Mm. man dama xaw ma sëñ Cheikh Coro Mbacke laa ko war a wax. xaw ma booy Cheikh Coro xaw ma booy Cheikh Coro xaw ma lu mu ko war a wax ndax Coro. Euh, mm. dafa nekk nit boo xamante ne nii. Eh, dama koy indiwaat ci wax ja sëriñ Touba waxoon. maamam maamam. Mm-hmm. sëriñ Touba dafa ne woon keroog ca Ceyeen Jolof. Mm-hmm. daat ni nit mën na maa jege te fekk sori ma mm-hmm. sori na ma nit sori ma loolu te jege ma sëriñ bi daat ni lii fi Touba li fi ne. mayewul des koy jaay ci la sëriñ fàllu Mbacke jaayoon njureelam jënde ko ak taalibe bi. ñu ko mbàkkee ginnaaw boo ma ko nangulee ba pare ma mm-hmm. jëlaat njëg gi ak bénéfice bi yëpp joxaat la ko àddeey Serigne Touba kon sëñ Cheikh Thioro jàppoon naa ne war naa doxe tànk yooyu mm-hmm. muy ay tànki maamam ay tànki baayam ay tànki magam ak ay rakkam mm-hmm. waaye sëñ Cheikh Thioro dafa dugg ci politique topp di fen aw askan te fen yi muy fen askan wi yaakaar naa ni nekkul cëram ndax sëñ Cheikh Thioro dafa nekk nit boo xamante ne nii dëgg la député la waaye war naa xalaat keroog bi Macky Sall nekk ci nguur gi fi nga xamante ne nii mooy Touba daan inondé di am ay ndox lu bari mais minute minit minute Coro Mbacké dina jug sol dugg ci nit ñi def ay vidéo di dénoncer di wax waaye yaakaar naa ni su demee ba Touba ñu jub màggal borom Touba gii di le 18 safar Sénégal gépp ak àddina gépp di ko xaar sëñ Cheikh Thioro amul lu muy def lu dem Touba di jënd ay machine u pompe vingt cinq mille francs yii nga xam ne mënul pompe sax benn kër loolu yàpp waa Touba la ak di ñaawal waa Touba ak di wane ni ñun ñoo xeex ba nekk au pouvoir suñu cër lu ma ci neex laay def ndax nag jàpp naa ni il est temps jeunesse bu Touba ñu xam ni sëñ seex coro mii ab naxekat la kii am naa féq la naa féq piir mooy moom parce que naa féq nag li tax sëñ coro mii manaan am naa féq la moom ci boppam bu fekkoon du naa féq waroon na dénoncé keroog bi Macky Sall di nekk ci nguur gi ak Macky Sall li mu def Touba yépp dégg naa sama benn frère bu ko wax Abdou Nguer mu ni Touba bu fa Macky Sall defoon ay lampi or ay tali or ñoo bañ Macky Sall waaye Macky Sall li muy def Touba yépp defu ko ngir population Touba. da koo def ngir sëriñ bi. da koo def ngir umma islamique ba fay daje. da koo def ngir ñaan ga sëriñ Touba ñaanoon suñu borom ba suñu borom nangul ko ko dëkk Touba kooku la xam ne Touba ba mu fi juddoog léegi nii màgg gi mu màgg yéem na àddina bi yépp kon Macky li mu doon def Touba def ko ngir dañ bëgg seen électoral ndax xam nañu Touba war nañ ko ginnaaw Macky Sall bu fay noonu ay lampi orit waa Touba ñoo ko bañ rek. moo tax bi ma déggee kàddu ko ab Nguer wax ko dama cee bég kontaan xam ni xel la boo xamante nii nit ku ci nag war ngaa xelu te déglu kàddu Abdou Nguer yooyu te loolooy dëgg hmm. waaye fii ma wax yow nii hmm. rëccu nañu Touba ils bokku beaucoup regrettés population bu Touba moo tax may wax nag jeunesse bi nga xam ne ay wàll yaan lañ fa seen maam amu fa dara boroom Touba ku moo bay dëkkam moo sanc dëkkam ci ndigalu suñu borom kon yaakaar naa ne ñoom ñi nga xam dañoo dem dëkk ji Touba. gis li nga xam ni Macky Sall daan na ko fa def ñu dëgg ci tànk daan jël ay ciment ak ay pono di fatt ay caniveau ba ndox mi dootul mën a tee jàll fi nga xam ni mooy euh, di jóge biir Touba di dem ci ay bassin de rotation wala ñu koy yóbbu ci àll ba yooyu yëpp ñu di ko def ngir lan daaneel Macky Sall ngir lan jaxase Macky ak population Touba réussir nañ ko waaye nag réussir boobu ba pare te ñuy ñëw ci nga gis fii ñu toll nii. Mhm. Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye fay jiite réew mi ah? mhm. li nga xam ne moom lañ daan def Touba mu mhm. dikk nag ci seen kaw nag ñoom ñëpp ñu ni pat benn journaliste nangu ta wax benn nit nangu ta wax lu dul ñun ñii nga xam ni dañuy dénoncer ñoom lañ daan dénoncer ci jamonoy président mak Sall moom la ñuy wër di leen ko rappeler di leen wax ni aw askan boo leen bëggee jiite doo leen fen faaw nga jaar ci dëgg jaar ci yoon. donto mënoo ko moo tax tey ne leen mënuñoo saafara problème bi moo gën ñu naan leen dinañ ko defar dinañ leen dimbali fekk nekkuñ ci tànk mais mais eh, ana keroog bi nga xamee ni président Macky Sall mi ngi fi wax leen li mu li mu leen di wax ñoom ñu lànk ni dañ ciy gëmm seen bët Macky Sall taxaw na fi dani taw yàlla bii di jógee ci asamaan si di wàcc mais amuñu benn pexe bu mën a téye taw mi te faw muy taw te taw mi dañ koo soxla waaye nag. yàlla bu mu jégg dayoo ba yàq ku ne xam na ni bëri na ci askan wi Touba ñu bari ñoo xamante ni nii dañoo dëkk ci ab déeg ndax Touba la fa nekk ciy dégg bari na. Mhm. surtout côté umul xuraa boobu noonu jëm yoonu kër ab Ablaye Wade bi jëm yoonu héliport ba nga bëtt noonu jëm yoonu pël ga jëm yoonu jànnato bi nga wëndeelu ba bëtte yoonu Mbàkke lu ci bari foofu ay déeg la ñi dëkk tuubaa xam nañ li may wax ndax yàgg naa dem Touba bi may gone ba tey ñëpp xam nañ ni foofu yëpp ab déeg la. léegi nag nit ñi nga xam ne dañoo dëkk biir Touba dëkk ci ay zone ndox te mënuñu leen faa jële président Macky tegoon ay programme yu am solo ñu waroon degee si ay milliards yu bari ngir lan waa population Touba nekk ci jàmm ginnaaw projet boobu ak seegul woon président Macky Sall daat ni daat ni ONAS ki nga xam ne moo ko jiitoon muy Mamour jàlloo daat ni ko fexeel ba nga xam ni bu ñu jubee màggal gi bu benn ndox des Touba mm-hmm. loolu moo waroon ONAS jëloon dégoosé woon ay tiwo yoo xam ne ay tiwo kaw solo yu ngand yeneen a ngi rappelu femme bi ñu jàppoon benn guddi te ñu filmé woon ko mu yoroon ab ciseau di dagg kii bi pour ndox mi bañ a jàll ndox miy jóge biir Touba ñu koy manque muy jaar ci tiwo yi di génn Touba pour bañ a jàll ñu teg fa ay moto pomp yu mag mhm. yoo xam ni mënuñu laa wax sax cheval bi ak li mu mën a xëccee ay ndox lu Touba masaana taw lu masaana inondé balaa vingt quatre heures wala soixante douze heures ndox mépp évacué wu fu boo jógee jannatu jëm yoonu jumaa ja euh, wetu kër sëñ Cheikh Saliou jumaay sëñ Cheikh Saliou gi foofu am na benn xur boo xam ci kaw tali bi su tawee oto bu fa duggee day muuru waaye balaa man vingt quatre heures ndox mépp ñu évacué ko loolu nag ci liggéey président Macky Sall la ñoom bi ñuy bi ñuy opposé wu dañoo yàq matériel yooyu yépp